journal bi xëy di ñu xibaar naan ñi Guy Marius Sagna moom àndul ci charte bii nga xam ne gars yi ñoo ngi koy wax ndax Guy Marius Sagna nee na am na benn charte boo xam ne ma ngi ci réew mi te charte la boo xam ne bu am njariñ la te boobee la ñu sant Macky Sall mu daal di koy respecté mooy charte réew mi di constitution bi Guy Marius jàmm dina am te benn jafe-jafe maanaam du am ci réew mi violence du am ci réew mi collectif ñoo lànk ñoo baña ñoom tamit ànduñu benn yoon ci charte la ko waral journal bi di charte boobu bi maanaam ñu dugal seen Macky Sall munta amaat ñetteelu mandat ci bopp réewum Sénégal gars yi daal leen koy lànkal moo tax ñi nga xam ne ñoo bokk ci collectif ñoo lànk dañoo mer ba futu daal di say lànk yéen kaay ñu xëy fekk sa mu njëkk ba professeur Moussa Baldé mi nga xam ne moom lañ dénk lépp loo xam ne jëm na ci wàllum mbay mi muy leeral luy soxal wàllum jënd mekk njaay mi nga xam ne ci gerte gi ni ko suba ci alxames ji lay door yéen kaay gi de la sa xëy di ñu wax nga xam ne ñoo yeewoo ci diwaanu Parcelles Assainies ñoom nag sonn nañu ba maara day taali ci ne moom la ñuy naan ñi nga xam ne nag ñooy koy waa CNO ñoom bi ñu leen laajee la ñu xam leen nee nañu daal seen yoon nekku ci seen ngañ ñi nekku ci lépp nag wax leen ak waa BRT bi maanaam liggéey yéen a kaay gi di réew mi quotidien association femmes juristes yi ñoom nag nee nañu dañoo bëgg daal ab enquête bu leer naññi ci viol bi nga xam ne Fatima Miss Sénégal 2020 maanaam ma ngi koy wax journal bi xëy di ñu xibaar naan ñu am na kuréel koo xam ne ay jigéen ñi kese ñoo si nekk ñoom nag jóg nañu na sojet tey jii danañu dem ca tribunalum Dakar daal di fay déposer plainte collectif jëmale ko ci Amina Badiane mi nga xam ne moo jiite lépp soxal wàllum organiser Miss Sénégal journal bi nee na la nga xam ne moom la jigéen ñi di sàkko maanaam licence d'exploitation Miss Sénégal ñu daal di koy rocce yéen i kaay gi di source nee na nag ñoom li leen jaaxal ci mbir mi daal mooy Alberta Diatta noppi gi nga xam ne noppi na ko ci mbir mi journal bi di Dakar Times xëy ci élection locale yi ak ci diwaanu Dakar journal bi nee na gis na ne candidat yi nekk ci wiilum Dakar ñoo ngi njaay ceekee di draguer lébu yi journal bi xëy di càmbara électoral lébu ci Dakar solo si ana nan la toll ndax na consigne de am yéen i kaay gi di l'Observateur xëy élection locale yi nga xam ne demul ci nga dikkul mbay laara te élection yi taxawul boo muy tuule sa la jëm ministre de l'intérieur daan nay déposé lu toll ci fukk ak benn ci ay recours ca cour suprême yéen a kaay gi du Sud Quotidien nee na élection locale yi ak séegu la waaye nag tension bi ma ngi mel ni tulleeg male bu passé violence politique bi nga xam ne am na ci waaye nag jàppante bi am diggante préfet yi ak cour d'appel yi réew mi bi di Lamine Bara Diop ñu naan ko a kaay gi xëy di ko leeral nee Diop Taïf moom i dafa jaaroon ci camp Abdou Diassé doon filmer ambulance yi nga xam ne moom lañ fa def yéene kaay gi nee na loolee moo tax ñu teg ko loxo atte nañu ko démb waaye nag doon na jéggo la yéene kaay gi de la Tribune nee na dossier yu bare bari ma xaar procureur bu yees bi ak doyen des juges bu yees bi yéene kaay gi di Le Quotidien nee na doyen des juges bu yees bi di Maham Diallo moom nag ñoo ngi koy tuumal ne ko jege Adji Sarr la yéene kaay gi di Walf Fadjri nee na lii nag a ay gaaf wala lu moom Barthélémy Dias ab non-lieu jamonoy Barthélémy Dias ñu koy ŋawtu ŋawti ca jamono jooje la ñu andiwaat Ousmane Diagne ana lan moo xewa journal bi xëy sampab laaj yéen kaay gi de la témoin nee na Orange Money ji maanaam wàcc na lool wàcc na ba gën a ñi nga xam na ñooy waa Wave ndax Wave seen commission bi un pour cent la woon Orange Money ñoom nag jamono ji ñoo ci zéro virgule huit pour cent na nag concurrence bi daal jamono ji baax na gars kontaan nañu lool bi nga xam ne am na ci diggante Orange Money ak Pastef na concurrence boobe daal yàgg yéenekaay gi di réew mi ko di jeexee dañu xibaar naan ñu terminalum Ndakaaru niki démb toj na ndax dafa am benn waay boo xam ne dañu ko fa moom nag dafa amoon benn gel ñoom ñaar ba ñu demee ba bàyyante fekk waa ji amoon na vidéo boo xam ne moo xale bu jigéen bi ñoo sa nekkoon doon sim seen maringaan yi xale bu góor ba bi nekk jël ba daal di koy fësal ci réseaux sociaux yi atte nañu ko tëj nañ ko lu toll ci benn weeru kaso yéenekaay gi di libération xëy ci benn mafia pièce détachée yéenekaay gi ne na gaay daal dañu doon sàcc ay oto diggante Dakar Malicounda ak Sindia waaye bu ñu sàccee oto bi dafa am benn kër boo xam ne fa la ñu ko doon denc sa Sindia daal di koy def pièce détachée bu ñu ko jëlee nag benn waay bu siiw boo xam ne bu nekk di foncé ci Dakar moom lañ ko doon jox mu ko doon jaayaata waa ji Tony la tudd ab receleur la yéen a kaay gi di record xëy ci Ligue des champions nee na Barcelone ma ngi ci danger Manchester City ak Paris Saint-Germain tey jii danañu laale ngir dañuy xëccoo première place bi yéen a gi nee na sunu gaynde yi nga xam ne seen dégg-dégg neexu te ñu jël coupe d'Afrique bi Macky Sall njiitu réew mi recevoir na leen may na